آله وصحبه ومن والاه mbokk yi sant yàlla subhanahu wa taala ñu julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu amaat kontaan te dajawaat jataay bi ndaxte toog ak yéen dafa neex mais ñuy jéggalu d'abord toujours muy démb muy tey am na ay yéex yu am ci bi te xam nañ ne ay sabab yu dépassé lañ na ay bi ak yu mel nii la sabab asbaab xaariji an iradatillah kon ñuy jéggalu ci tardé bi parce que heure bi waroon na fekk nit ñi añ nañu dallu nañ noppalu tuuti xam nañ ne chargé na programme noflaay bi amul ni mu waree mais ñu koy jéggalu incha allah ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla coono yi yëpp mu yokk ko suñuy misaan xam naa incha allah euh, kon dañuy waxtaan ci ahamu sifaatil xawaarij wa raddi ala ahami shubhaatihim Euh, melokaani xawaay yi ñen la li ci ëpp lan la wala li ci gën a bëgg ak seeni subahaat li ñu am jàpp ne ay dalil la pour ñoom muy ay subahaat nan la ñu koy tontee di ko rant ki nga xamante ni mooy taxaw waxtaan bi muy al ustaz Ahmed Tidiane Anne fal yatafadal mashkur insha allah Thank you.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 mbokk mi comme nu ma waxee léegi suñu mawdu bi mu ngi aju ci ahamu sifaat alxawaarij wa radd ala aham sufahaatihi mooy ay kuréel ci lislaam yi nga xam ne dañ leen di askan lay ci lislaam lañu bokk benn ci kuréel yooyu lañ nar a waxtaanee tey insha taala jéem xool kuréel jooju ñoom ñooy ñan seen taari xam nga ñan xawaari ak kañ lañu feeñ ban jamono lañu feeñ ak lu waral ñu feeñ ak melokaan yi leen di gën a ak subahaat seen subahaat yi xam ne dañ koy jàppee ñu koy def ngir tabax ci loolu benn waaye subaxaat yooyu tamit nan lañ koy delloo kon dañuy tàmbal ne wa billahi tawfiq ñan ñooy xawaarij man humul xawaarij xawaarij ci wàllu kalaama arab baat bi dañ ko jëlee ci xaraj mooy génn ndaxte yàlla subhanahu wa taala bu mu yenne bu mu yónnee yonente bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam daf ko jox diine ju mot nabi sallallahu alayhi wa sallam génnul àdduna lu dul fekk xeet bi yëpp ñu ngi ànd nekk benn yàlla subhaanahu wa taala mu digal ñu ñun ñëpp nañu ko nañu ci buumam ñu bañ a tàqali ko bañ a wuuti mu ne waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarragu mooy leen ci buumu yàlla gi alquran sunna islam kenn mooy ci jàpp ci bu baax kenn bañ a tàqali ko yàlla tere ñu tàqali ko mun a wala wala takunu kalladina tafarraqu waxtalafu min baadi ma jaahumul bayinaat bu leen mel ni ay gaay yi nga xam ne dañu tàqali ko daf ay pàcc pàcc ginnaaw bi ñu demee ba am lu leen leer ci diine yàlla ñu am téere yeneen te dikkal leen ginnaaw loolu ñu doog a tàqali ko kon seen tàqali ko jooju teguñu ko téere waaye ci mbew lañ ko teg dañaa bew loolu nag yàlla subhanahu wa taala mu ne bu ñu mel ne gaa yooyu naka noonu tamit bu ñu xoolee yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu doon moytandikuloo moytandikuloo ne xeet bi nañu moytu kàttalikoo waaye mu xamal ne kàttalikoo faw mu am mu ne yahud yi dañaa kàttalikoo dafa ay pàcc pàcc lu ñu toll juróom ñaar fukki kuréel ak benn nasaara yi naka noonu ñoom def nañ juróom ñaari kuréel juróom ñaari fukki kuréel ak ñaar mu ne wasa taxtarifu haadil umma ala salaatin wa sabiina firqa nee na xeetam moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam suñu xeet bi dina tàqalikoo bi ñu tolloo juróom-ñaar fukk kuréel ak ñett dinaa ba yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu xamal ñu dina doon ñëpp yelloo nañu kàddu safar lu dul ko yàlla baaxee subhanahu wa taala ñoom yelloo nañu seen safar lu dul ko yàlla baaxee subhanahu wa taala lu yàlla yàlla dina leen baal wala ñu tuub ci mbaaxu yàlla subhanahu wa taala waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu xoolee dellal ci sunna dafa am benn kuréel rek mooy xawaari la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee dafa wax na mu ne mu wax waaye kuréel bi ñu naan xawaari bi duñ tolloo ñaar fukki xadiis yu topp diggante xadiis sahih ak xasan ñëw na ci di wax lan mooy xawaari lan mooy seen sifa di leeral lan mooy seen sifa lan mooy xawaari di ñu mooy seen di wax ci ñoom wax yu yu metti yu tar ngir balaa ñuy tàbbi ci kuréel yooyu kon kuréel ga ñoom ñooy xawaari xawaari kon ñoom ñooy ñi nga xam ne alladina xaraju alal umma bi sayfi wa sinaan wa xaraju ala aimati almuslimin وعلى الأمة الإسلامية بالتكفير واستهلال الدم والمال والصبي kon xabaar yi benn kuréel la ñi nga xam ne bu ñu génnee ñaari mbir lay def dañu am xalaat xalaat jooju doon di ñoom pas-pas ginnaaw loolu ñu génn jëmmal pas-pas jooju ci doxalin jël ngànnaay di xeexal jullit ñi kon ñoom ñoo ñi nga xam ne dañu génn di yéefeerloo nit ñi rawatina njiitu jullit ñi mu leen di yéefeerloo ku def erreur benn erreur bu ndaw du la baal dañu naan yéesal la da ngay tajdiid mooy da ngay nga ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bu dul la gën a jàppe yéesal la ne ndax de yàlla ne wa man lam yow yaa ci tooñ te nee na li ci wax moom mooy ku tuub safar nga ku tuub fan nga jëm safara ku ne ñoom noonu la ñu doxalee naka noonu tamit képp ku gëm njiitu jullit nii nga nangul leen ak fan war paa ku ne la waxee na nga na nga topp njiitu jullit nga nangul déggal boo ko defee ñoom ñun dañ lay jàppale dañ lay jàppe da ngaa comploo ak ñooñu ñu yéefeer loolu dina yóbbu la yéefeer kon bàyyiwuñu al a imma wal wal wal wal wal salatin wal umara wal raiya ñëpp lañu boole kon dina gis loolu dina allah taala ci kanam kañ lañu feeñ wuute am na am na ñu ne ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi benn waay ñëw fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu seddale ay maxaanim mu yonent bi sallallahu mu jàpp ci yëre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu xëcc ridaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko eh déet yaa Muhammad fa innaka lam kaadib haadihi qismatun lam yurabbiha wajhullah ñu ne sallallahu alayhi wa sallam maandu ñëw maandu woo séddale bi ñu séddale nii yàlla taxul nga séddale leneen a tax laa ilaha illallah kan lay waxal wax bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente sallallahu alayhi wa sallam woy xat fa man yaadil idaa man aadil parce na man bu dee man man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man maandu ma kan yàlla wóolu na ma jox ma wax di jóge ci kaw yéen ngeen bañ maa wóolu ñoom Umar Diop ñoom Xaalid bëgg cor baatuwaay bi ni sallallahu ne bàyyi leen ndaxte kii yàlla dina dogal dina am ñuy génn ci moom njaboot ñi nga xam ne dañuy jàng alquran alquran bi du jàll seen put mooy duñ ko comprendre du koy jàng di tëdd waaye comprendre du egg ci seen xol parce que ko mën a dégg dañuy julli julli yu mat di woor di def ay jaamu yàlla di def ay xiyaamu leen di def lu ne waaye nag ñoom ñoo gën a yéeg képp ku nekk ci suufu asmaan bi yonent sallallahu alayhi bu ma dajal ñoom dinaa leen rey rey bu gën a métti comme ni yàlla alake woon aat ñoom ñi bu ma dajal ñoom dinaa leen alal alal bu métti dinaa leen mbugal sallallahu alayhi wa sallam kon jox ay sëriñ am na ñu ne la boobu la ñu soxee ko am ñeneen ñi ngeen déedéet xawaarij mooy ñi nga xam ne gaa yi nga xam ne bi Ali ak Muawiya bi ñu demee ba xuloo mbir mi dem ba jaxasoo maarakat sëppi na am diggante Ali ak àndandoo bi ak Muawiya ak àndandoo bi ñu génn noonu seen diggante nee na ñooñu la ñoom ñooy xawaarij ñu bëri woon te ñoom ci fan la ñu génn ñu ngi génn ci armée Ali ci Ali lañu àndaloon ñu dem Béru nekk ci benn béréb ci Irak bu tudd ñu nekk foofu biñ fa nekkee jël ngànnaay ku leen romb ñu koy agressé ba Ali dem ànd ak arma dem xeexal ñoom rey ñu ñu bëri bëri bëri ñeneen ñi ci desoon ñu ñu tuuti ñu ñu tasaaroo dem nee nañ ñoom ñooy xawaar yi ndax yéen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa naan jullit ñi dinañu dinañu dinañ def ixtilaaf mooy dinañu wuutee ñaari kuréel yu mag ci dina dañu wuutee mooy diggante Ali ak ak ak Muawiya moo ne bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne summa tamriru maarikatun am ñu rocceeku beddeeku génn jël ngànnaay di xeex ñooñu ñoo ñaan ñooñu ñooy xawaari bi loolu bu ñu doon natt ban at la woon sanatu sabiin wa salaasin hijri la fekk gàddaay na bi sallallahu alayhi wa sallam am na fanweer ak ak juróom-ñaar hijri fi lañu génn am na tudd leneen am na tudd leneen na tudd leneen waaye ñaari wax yi bu ñu xoolee ñoom ñoo gën a fës ci li ñu wax wallahu taala aalam am na ñu ne ñi rayoon Ousmane ñooñu ay xawaarij lañ am na ñu leen jàppee xëy na lamboo nañ yenn sibaa ca xawaarij waaye boo sibaa xaraayul xawaarij yëpp dëppoowul ci ñoom kon ñun ñooy xawaarij seen melokaan yi bëri loolu moo ñu gën a ñu xam seen melokaan ngir ñu moytu seen melokaan bokk na ci annahum ahdaatul asnaan ahdaatul asnaan mooy ñi nga xam ne seen at daa bees ay ndaw lañu nekkuñ ñu mag amuñu expérience nekkuñ ay njiit yàgguñ ci lislaam dañu nekk ay xale nekk ay waxambaane am loolu kiiraañ ci diine bëgg diine rek commencé di wax jël ngànnaay di naan diine la ñuy sotal diine la ñuy xeexal commencé di naan mag ñi dañaa juum gis na ñoom bu ñu feeñee dañu naan Ibnu Abbas dafa juum Ali dafa juum ah ñu ne Ousmane dafa juum ñu jàpp saxaabi juum loo leen yemuñu foofu ñu dem gànnaay rey Ali ibn Abi Talib te Ali kañ la diine bi muy Ali ci ñi njëkk gëm diine la bokk bu dee Ali moo juum ñoom ñi nga xam ne ay xale lañ feeñ ñoom Abdurrahman ibnu Abdurrahman ibnu ibnu Zayd ibnu Maljam aw Munjim ñooñu bu ñu feeñee kañ la kañ lañ ñëw Ali da doon taxaw ci masjid Kuufa di xutba yowmul juma Ali di xutba ñu jóg di wax naan laa hukma illaa lillaah li ngay wax ànd nga di wax di wax di sabat Ali ci xutba kon nii ñooy xawaari kon ñoom ay xale lañ ibnu ibnu Hajar bi mu ñëw ci Fatul Baari mu ne mu ne ah ñu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam tudd ci hadiis tuddee leen ahdaasu ahdaasul asnaan mu ne al ahdaas jamu hadas wal hadas huwa as-sagiiru sinn mooy ki nga xam ne xale la Ibnu Hajar loolu wax kon ñooñu bokk na seen kii nekkul ñu yàgg ci diine ay xale lañ gëstu wu ñu xam-xam comprendre ñu diine lu bëri waaye nag am fiiraange lool ba pare taxaw fee wetti mag ñi jiital seen bopp ñoom te ay xale lañ kon xale bu bëggee jiite rek la plupart ci tuuti doon lay dal loolu benn benn melokaan ñaareel bi mooy subahaarul axlaam subahaar al axlaam al mooy axlaam mooy al albaab wal uqul subahaar jamu safih wa safa huwa al xifatu wa li wax ak mooy mooy ñoom seen dafa oyof nekk ñi nga xam ne seen xel macha allah ñu nga xam ne boo waxee dañ lay déglu ba pare xam li ñuy wax xam wax ji fu mu jëm déedéet ñoom xel borom xel lu oyof lañu lu leen di këpp dafa dafa yomb nit di day ñëw rek ne jihaad daa di ne jihaad topp leen déedéet kii naan jihaad doo ko xool mooy kan doo xool charte jihaad lan la booy jihaad kan ngay jihaadal jihaad ci dëkk julli ni lay doon wala ci dara la ñuy jóg ñu waa ji kii mooy waa ji kuy def discours rek la ñu bëgg sawrin parce que xale bokk na ci li mooy deretam dafa tàng day day nekk ku bëgg lool ay mbir ay fee lay mais nag mag day ànd ak dal di def ndànk di kii di wax nii li mu wax nii fan la la nar di xool résultat mais xale bi kon ñoom noonu la ñu mel seen xel dafa xoyo lu leen këpp dafa yomb loolu mooy ñaareelu lan seen ñaareelu melokaan ñu oyof xel lañ yeneen këf dafa yomb ñetteel bi mooy yaquluuna min xayril bari min qawli xayril bariya li may wax yëpp ay xadis la am kaa am kaa dagg rek daf ko ay lan ay sifaat mais li yëpp bu ñu delloo ci xadis yi dañ koy fekk yaquluuna min xayril bariya min qawli xayril bariya bu ñu wax wax wax nee na alquran nee na ku la ne alquran nee na kay dañ koy gëm mais ñoom li ñuy tegtaloo alquran fi ñu koy tegtaloo du foofu wajul istidlaal alquran bi ci lan lay tegtal jël aaya bu aaya buy wax dara d'accord aaya bi ci lii lay wax waaye ñoom xamuñu aaya bi lan lay wax fi ñu koy wàccee moo baaxul ñu ne aaya bi ci lii lay wax fekk bi foofu loolu moo leen juumloo loolu moo leen juumloo waaw ñeenteel bi mooy laa yujaawizu wala nga ne yaxrujuuna min ad-diin kama yaxruju saxmu min ar-ramiya nabi sallallahu ya wa sallam min ad-diin kama yamraqu sahm min ar-ramiya ni ñuy génne ci diin dañuy génn ci diine génn génn bu fëpp génn bi nga xam ne bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw da nga leen di romb leen ñu ngi ci diine rek yi gëñu yëg fekk génn nañu diine xam nga ku rey tulli jékki-jékki rey tulli ba pare naan man dam kaa rey ngir lan ki rey ali lan la wax dafa naan dama kaa rey ngir innama qataltuhu taqarruban lillah ataqarrabu ila allah bi dami ali damay jegewoo yàlla rey ali ngir loolu doonam doon siyaabu du mag ma am ma am ko fa yàlla ku rey ali ba pare di wax loolu xam nga kooku réer na lii mooy seen problème dañuy def lu garaaw jàppe ne loolu dañ koy jegewoo yàlla te xamuñu génn nañu diin yéen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dafa mel ne ku yor ay pet ay feleer ngay sànni ngay rëbb ci àll bi am li nga gis mu nekk lëg wala mu nekk kéwél wala mu nekk leneen nga xàcc dóor am na na ngay sànde bu baax xàcc bu baax dóor boo boo dóoree day xotti li nga sànni li ngay rëbb day xotti yaram bi ba ne beneen côté bi day mel na laaloo ko sax day dugg ba génn nee na ñi ni lañ noonu lañ mel ci diine dañuy dugg ci diine xóotlu xóotlu dara lañ ko teenal yaakaar nañ ci diina fekk ñu ngi ci beneen boobu bi génn nañu diina diina wallaat la fekk yëguñu loolu yàlla nañ ci yàlla ñu sol beneen sifaa bi bokk na seen sifaa anna fihim daafan fi fi fi fiqhi fi diinillahi taala wal fahm fi diinillahi taala duñu comprendre diine yàlla ji seen xel la ñuy jiital ak tar ak am xamaas am tàngoor ci diine yaakaar na lool mooy diine fekk dégg diine bu baax dañ ko dégg ku ñu gis nag mag bu ànd ak dal ñu jàppee kii ku ragal la wala kii kuy complot la ak buur wala kii ku yaccaaral la wala kii ay intérêt ñoo ko tënk waaye ñoom bare nañ pour joxe seen bopp ci diin seen bakkan seen lépp ñu jàpp ñeneen ñëpp duñu dara ci diin te boo doon wax Albani wala Bun Baaz wala te na ngaa ñoon du dara ñu complot ak umaraay xoolal la ku wax wax Ibn Baz wala wax ko loolu loo yaakaar ci moom moo gën néew ñu baax abadan kon ñoom noonu la ñuy doxale noonu la ñuy doxale yonent bi sallallahu moom moo wax mu ne yaqra'una al-Qur'an wala jaawir taraakiyahum mu ne jàng al-Qur'an waaye du jàll seen lan seen tuuti mooy bu egg seen xol duñ ko kon ñu tàmbali ñu àggale incha allah kon bokk na ci seen sifaa ñoom xawaarij yi mooy seen ñàkk dégg diine seen dégg ci seen dégg diine dafa néew lool dañuy jàng nag dañuy jàng alquran lu bëri waaye amuñu si dégg duñ ko dégg duñ ko comprendre laa jaawizu taraabihum mbir mi du romb du weesu seen put yi mooy du egg ci seen xol du egg ci xol beneen bi mooy yajtahiduuna fil ibadat dañuy góorgóorlu lool ci jaamu yàlla yi nabi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis muy wax ak saxaaba yi muy wax ak saxaaba yi mu ne ñoom ci wàllu julli seen julli ni ñuy jullee duñ ko nag duñ ko nag ak seen julli yéen ñoom ni ñuy julli ñoo leen ko fuuf ni ñuy jullee seen koor noonu seen jàng alquran noonu seen qiyaamu lay noonu xawaari ji ay jàmbaar lañu duñu ay sàppet xawaari ay jàmbaar lañu duñu ay jàmbaar lañu dañu dem ba jeex waaye duñu dellu ginnaaw am na kenn ci seen njiit yi mu tudd Qutb ibn Fujaar kooku ci seen la bokk njiit xawaari mu ngi waxal boppam mu laha wa su'aan muy wax ak mu ne maa ngi wax bopp di wax ak sama bakkan fekk mu ngi dellu ginnaaw ci xaraji ma ko déedéet bul dellu ginnaaw waaye avancé la ma koy naan avancé la ma koy naan deewal ndaxte dee moo gën nga def nga dund dund di nga xam ne dund lan dund zull la waaw toroxtaan mooy na nga dund dund di nga xam du baax la loolu la lu wan mooy ñoom ay jàmbaar lañu waaye jàmbaar doogu yëpp dañ ko jàpp jihaad ni ñuy xeexal dañ jàpp nañ ci jihaad loolu moo leen réeral ñan la ñu jihaadal du yéeféer yi de dañ ci ñëw waaye jullit ñi alamul islam yi bokkoon ci lu ko sonnal ku jàng taarixul islam yi li nga xam dawla abbaasi ak dawla umawiya lu leen gën a sonnal mooy xawaarij yi almasaakil aldaaxiliya fi dawlati fi inda inda al umawiyin wala inda al abbasiyin mooy lan mooy astawraat addaaxiliya li nga xam ne ñan ñoo ko doon xam di ko taal mooy xawaarij yi ñoom ñoo gën a sonnal dawla islamique kon loolu bokk na ñoom ci wàllu jaamu yàlla dañ ci dañ ci góor ko loolu moo tax benn dañ ko araamal ñoom dañu ne boo defee benn bàkkaar bu mag yow yéeféer kon ñoom duñ ko def seen fen ñan lañ ko xamee siit yi siit yi fen la dañ ko tabax ci fen mais ñi duñu fen dañu araamal fen dañ ne ku fen rek génn nga diine génn nga diine jooju mooy problème bu ñu waxoon kabira rek baax na waaye dañu naan naan génn nga diine foog nga tuub dellu ci diine mun a nekk jullit beneen bi mooy ñoom ñoo gën a yées ci nit ñi imam ahmad dafa wax mu ne imaam ahmad moo ahmad ibn hanbal mu ne alxawaarij qawmu suuin laa aarifu fi l ardi qawman charran minhum ñu boo delloo ci téere bi ñuy naan ak sunna lil xalaal dañ ko fa gis nee na xawaarij ay nit ñu bon lañu gisuma ci kaw suuf ñu leen gën a bon dañuy tuur deret dañuy jalgat dañuy def lu leen neex bokk ci seen melokaan mooy yaqtuluuna ahlal islam hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nunu leen tudd ci hadis dafa naan yaqtuluuna ahlal islam wa yad'uuna ahla al awsaan bokkul ci li ñu ràññee ko dañuy rey ñii di askanoo ci l'islam la ñu rey ñi nga xam ne ne ci yeneen diine ñu nekk ñooñu amu amuñu ak ñooñu relation dañ leen di bàyyi duñ leen rey waaye ñoom seen rey seen jihaad ci ñan lañ ko jëmale ci jullit ñi fan lañ ko defee sos ci fan ci société islamique yi lañ def mujtamaat islamique la ñuy neen foofu la ñuy jihaade bokk na tamit ci seen melokaan mooy yataanuuna ala umaraihim wa yashhaduuna alayhim bidalal kama faal abdullah ibnu zayd alxuwaysira ma annabi sallallahu alayhi wa sallam ku leen dañ lay ñaanyi di la teg sa der lu bon loolu moo tax ñoom ku jiite l'islam la dañ naan diw ku bon la mënuñu am njiit ku leen jiite rek sikkal di wax moom lu bon di ko jàppee ku yées la ñuy génn ngir xeex ak moom comme waa jooju ci jamono yonent sallallahu alayhi wa ki ñëwoon ne li ngay def tegoo ko ci yoon maandu woo bu dee yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy njiitu jullit ñëpp kooku jël wax ju ñaaw jooju jëmal ak loolu li ñu siy dégg bu ñu ñëwee dinañ def leneen waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñëpp bu dee moom muccul ci seen wax keneen du ci mucc ci njiit yi naka noonu tamit jamono ji ñuy génn comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa naan ñaari kuréel yu mag ci sama xeet dinañu jote am wuute ñoom ñu génn ci digg bi dañuy génn daf mel ne xam daa am bu jóg rek ñoom ñu mun a feeñ ci digg bi kon jamono bi ñuy génn ñaari kuréel yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen tuddee da leen askanle ci moom mu ne ñaari kuréel yu mag ci sama xeet ñooy jote ñooy am wuute ñoom nag ñu mun a génn foros ndox génn ci la ñu amee ni ñu génnee kon jamono bi ñuy génn ci jamono ay nit ñu baax lañ jamono Ali mu Muawiya ñu ñëpp ay saxaaba la ñu baax lañ ci la ñu feeñee ñoom ñu génn kon ñoom li ñuy xeexal nekk lu bon ñun ñu baax lañ ñun ñu baax lañ bokk na tamit ba tey ci seen melokaan mooy li ñuy tegtaloo mooy alquran la ñuy wax la ñuy tegtaloo waaye dégg na alquran maanaa bi lu muy tegtal loolu xamuñu ko mooy wajjul istidlaal bi waxoon nañ ko sànq waaye bokk na ne annahum la yarawna li ahli al-ilmi wal fadli makanatan yuhaqqiruuna al-ulama wa yatahalawna ala al-ulama wa ala ashab al-fadl moom ñoom dañuy rëy dañuy jàppee seen bopp ñeneen ñu ëpp ñu leen dara koo koo gis muy naan saxaaba yi ëpp ñu dara ñoom ay góor lañ ñun ay góor lañ comme noonu waaw saaba yi ñu ay góor lañ ñun ay góor lañ ëpp ñu ñu dara wallahi ñoom ñoo ñu ëpp ndax mu saf wala hum wala hum axaq fi l iman wal amalu salih ñoom ñëw jihaad ànd ak nabi sallallahu alayhi wa sallam joxe di bakkan joxe seen alal nga ne ñoo ni gënuñu la ñoo la gën fuuf Umar ibn Abdul Aziz bi mu feeñee ci jamono gaa yi naan Umar ibn Abdul Aziz moom ku baax la ku baax la ku baax la mooy xaaral ko la bàyyi rachet ba am bi ñuy xalaat ci nit ñi amaana moo gën a baax kan Muawiya ibn Abi Sufyan Muawiya ibn Abi Sufyan borom xam-xam bi ñu déggee ne leen ne na ngeen pënd bi mu mu aayu bu muy jihaat ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam pënd bu doon bu doon jóg di dugg ci bakkanam moo gën ku ma def na àdduna ak adduna dafay wax loolu ndax ñaari yëngu ni ci saxaaba la ci di saxaaba man lañ leen di yemale ñu mos a yem gisul kon lii dañuy gis lii dañuy gis Aliou du dara loolu moo tax ñu rey dañuy gis Ousmane du dara moo tax ñu rey dañuy gis Abdullah ibn Abbas bu dara dañuy ñëw ci ñoom di waxtaan ak ñoom ñu ne bu leen ko déglu benn waay la rek ci waa Quraysh te xam nga Quraysh yàlla lan la nag ci waa Quraysh yàlla def naa waa Quraysh innahum qawmun xasimun nit ñu mën a werante lañ kon bu leen déglu Abdullah ibn Abbas gis nga kon ñoom noonu lañ doon gisee noonu lañ doon xalaate ñi ëpp ñu ñu dara te ñooñu ay saxaaba lañ beneen bi mooy lu leen yóbbee loolu ba tey ci melokaan yi mooy al ujub bi naf mooy dañu gis seen bopp waaw dañu gis seen bopp jàppe seen bopp ñu ñu ñu ñu laab lañu ñu sell lañ ñeneen ñi ëpp ñu leen dara loolu moo tax ñu jóg ñu ne dañu tegaat nit ñi ci yoon ndaxte boo xamoon yow sa bopp tegoo ci yoon sa bopp ngay tàmmale du dëgg mais ñoom dañu gis saxaaba yi ñoo tegoo ci yoon dañu war a tegaat saxaaba ci yoon Ali dafa jàdd dañ ko war a tegaat ci yoon Amr ibn al-As dafa jàdd dañ ko war tegaat ci yoon Muawiya dafa jàdd dañ ko war tegaat ci yoon ñu ne Abu Musa al-Ash'ari ak ñëpp xakamay nii ñoom ñëpp ñoom ñëpp kafaru benn yi ñoom ñëpp ay yéesal lañ dañ la war a tegaat ci yoon tegaat ci yoon nag jaar moo leen tegaat ci yoon kon loolu muy woon mooy ñoom dañuy gis ne ñoom ñoo gën a ñeneen ñi baax wala yàlla bokk na ci seen melokaan mooy loolu li ñu jóg ba gis seen bopp di naan dañ koy fajal seen bopp nan lañ ko tuddee ñu ngi ko tuddee al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar lañ koy tuddee mooy yudhiruuna al amra yudhiruuna al amra bil maaruf wa nahyi anil munkar aw yudhiruuna al xuruj ala al a'imma wa saalihin yudhiruunaha bi suurat al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar génn bi ñuy génn benn bëgg def complot def seen groupe ñu ngi ko tuddee al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar tere lu bon ak digle lu baax parce que loolu mooy digle lu baax a tere lu bon déedéet loolu dinañ ñëw lu leen ko yóbbee mooy nusuus yi duñ ko yu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax texte yi duñ ko comprendre parce nekk ak suñ koy canaliser ak ni mu am déggin déggin bi am yeneen sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee wax njiit yii di ñëw ci ginnaawam mu ne saxaaba yi muñ leen muñ leen buñ leen dóoree jël seen alal dóor leen dóor seen yaram jël seen alal na ngeen muñ na ngeen muñ ba ngeen dajeek man sallallahu alayhi wa sallam mais jël leen jaas ngeen xeexal gaa yi ci suuf te ñi ñan lañ doon xeexal nañ bàyyi xel ñu saxaaba yi lañ doon xeexal mën nañ arrêté ah? xanaa boog hmm? kon insha allahu taala waxtu bi jot na mun nañu yem foofu bu ñu delloo ñu àggale mawlu bi bismillahi taala sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa asalaamaaleykum أغلق لها حتى نرجع